chers amis internautes Feeling Dakar TV ñu ngi am te bu yaatu jàkkaarloo ak yéen tey ñëw fii ci uh, géejawaay wala bokk uh, golf fii ci en face cité Alioune Sow war fee fekk si suñu yaay ay Aïssatou Penda Diop yéen ñëpp xam ngeen ko uh, ci Feeling Dakar TV xàmme ngeen kanamam fii donc nag ñu war a waxtaan ak moom ci lu bëree bari ci wàllu actualité waxtaan itam ci wàllu njëriñ donc sans plus dañu koy bàyyi mu nuyoog internet yi su ko defee ñu dugg ak moom ci jotaay bu ne war nañ ko seq ak moom donc yaay booy dañu lay bàyyi rek nga nuyoog internet yu Feeling Dakar TV euh, nga saafonte ak ñoom. salaamaaleykum wa rahmatulah. taalaa wa barakaatuhu maa ngi nuyu àdduna wërngal këpp di nuyu sénégalais de l'extérieur yi di leen euh, ñaanal yàlla jàmm di leen ziar di leen ñaanal tam si gàmm gi ñu weesu yàlla na sunu borom nangu ñaan yëpp lépp li nga xam ne ñu ngi koy wut foofu rek yàlla na ko sunu borom yombal leen ko mu ne ñi fi nekkit yàlla na leen yàlla yombal seen wàllu buntu wërsëg yàlla musal ñu ci musiba balaa ak seytaane mu ne defal ñu ay xéewal yu saawaan baawaan macha allah ñi feebar tam yàlla na yàlla defal jàmm fëgg seen bopp ñi nekk ci xat-xat nekk ci buntu kaso yi ak ci biir yëpp yàlla suñu borom uh, génne leen ci xat-xat yooyu. Mhm. amin yàlla nangu ñaan yëpp donc uh, dañuy commencer ak yow e, émission bi comme ni niñ ko waxee rek bala ñoo gën a tardé ci waxtu bi ci mbiru li nga xam ne moom moo di wàllu actualité li ci jiitu nag mooy uh, dañuy ñaan yàlla mu dolli leen yërëm ci une semaine ñàkk nañu suñuy ñetti doom. ki ci jiitu di eh, Myriam Dior ki ci topp di eh, ki nga xam ne moom moo di mbay Sapar Sapar ñu bari xam ko ci TikTok bi ki ci mujj di Fambaye Fambaye kaawam mësoon nga ci àddu mësoon nga wax ni du feebar bu sëriñ di faj mais feebaru docteur la euh, lan mooy ñan nga yaakaar ni ñooy les vrais responsables ci li nga xam ne moom mooy dem ak Fambaye bi. waaw responsable yi nga xam ne ñu taxaw mooy ñi nga xam ne dañ ko bañ a jàppale. Mhm. parce liñ naan yàlla ku mu teg loxo rek nga jug waaye tamit li naan leen le xaru la parce que tubaab xamul loolu. Mhm. tubaab dafay gis ne benn circonstance boo ci dee mooy danga xaru. am na fi nga xam ne tam fi nga taxawee obésité bëri na bitim réew. Mhm. waaye gisoo kenn dee ci. parce que mu ne bu dee mën faj la tamit bu dee mën nañ ko ñi koy wax ne mën nañ ko faj nañu jël seen billet dem bitim réew moom ma nga dafa sëq a jóor. Mhm. donc bu ñu gisee li nga xam ne ñi ma wax ne principal responsable yi mooy ñi taxaw yor seen alal nekk seen puukare ak seen fo ak seen mën a wonewu waroon nañ mën a tey investir ci Fambaye des social te yàlla rek tax comme soxna Aïda Diallo ni mu koy defee di œuvre ci social parce que lu ma teg sama bët la mu ngi ñëw hôpital Dantec fekk ma am fa malaat gis mu wàccee ay ay ay booli ceeb macha allah yu ñu berne ba mu baax prison yi dem ma fa waaye dégg naa ñu ne dafay def ay berne macha allah yoo xam ne mu ne te amul ci benn wonew te boo laajtewul duñ la wax kan moo koy indi parce que oto yi cantaa lañ ci bind. Mhm. donc am na ñoo xam ne Sénégal fii ñu ngi toogee toogaay boo xam ne wonew ak puukare ak wone seen bopp lépp lu yàlla nekkul rek baaxul. Mhm. waaye soxna Aida macha allah soxlawu ma dërëmam ñaanu ma ko dërëm xam ma xaw ma ko. waaye nit da ngay wax rek te yàlla tax te xam ne soxna Aida moom yàlla lay wutu wutul dara. Mhm. parce que bu doon dafay wut nit ñi rek dana xaar ba événement ñëw mu seet sañse yi fa mu rafetee parce que moom foo ko gis voile lay sol te voile ku nekk xam na ni cherul mètre mille trois cent lay jar voile assis moom ci loolu lay taxaw loolu lay sol loolu lay soloo mhm. buy def ay bernde moom moo ciy dugal loxoom parce que keroog ba Pawlish demee ku nekk gis nga nu mu taxawee. Mhm. dem ma fa waaye gis naa muy def. ñi fa dem tam gis nañ ci oyof ga mu koy defe ak defal gi mu koy defal boppam. Mhm. parce que lépp looy def rek te yàlla tax nga def ci alal waaye ne sa doole dem ci wit mhm. mu ne tuyaab ba gën a yokk te taxaw na ci tànk yi Cheikh Béthio taxawoon tànk yooyu la taxawee te cantaane ga mu nekkoon mu ne xëy na réeroo am na ci famille waaye jugul ci la mu nekkoon ba mhm. kon donc ku mérité à féliciter la. tey bu ñu amoon fukk yi mel ni Aïda Diallo di jàppale prisonnier di jàppale ñi nga xam ne dañoo néew doole rek. macha allah Sénégal jëm kanam. Mhm. macha allah mu mel ni comme li nga wax euh, les vrais responsables mooy ñi nga xam ne am nañu mën ko te defuñu ko ci moom ba mu koy euh, génn àdduna. waa mhm. tey bu ñu demoon bañ ne Fambaye tey dañu war a dëj Fambaye tey képp koo xam ne war nga mën a taxaw. danga gis mu génne million wala lu ko jege parce que dañuy am remords loolu day des seen biir xel mu ngi mel ni nga taxaw di xool nit di fettaxu sa kanam ba dee wala sa xar sax day des sa bopp masamaa sa nit. koo mhm. xam ne couche sax daf ko jafe. Mhm. ay nit yor seeni millions yor ko di puukare di sañse. Mhm. tiitaru. moo tax ñenn ñi bugguñu ko def lu baax moo tax ñu jublu ci soxna Aida bëgg ko indil ay jafe-jafe ak faagaakat. mais li may gis yàlla rek laa ci gis parce que may gis yàlla rek lay defal. parce que bu doon lu muy def nit di ko fay la wala mu di ko neexal. wala mu teewut ak puukare fii ñi ko fiy def moo leen ëppale fuuf soxna Marème Faye Sall kenn ëppale ko dara. tey jëkkëram moom moom moo jiite réew borom kër gi moom mooy président Macky Sall Sénégal mooy kër gi waaye borom kër gi Macky Sall la. soxna Marème Faye mooy soxna si waaye wonewul daray puukare simplicité ak mu ne social ci lay dox donc ñi nekk nii di wone seen bopp di tiitaroo ko wone puukare dimbali woon ñu feebar ci la ñuy gën a amee yàlla fu la ñuy def. Mhm. voilà euh, yaay booy ñu gis na itam déegi comme ni ko waxee euh, dafay multiplier wu surtout ci côté jeunes yi jeunes yi ak ñi nga xam ne itam dañuy faral di nekk ci TikTok bi gis nañ ñu bari ñu naan nañu moytu TikTok bi puisque à part Mbaye Sapar am na beneen xale bu jigéen boo xam ne ci TikTok bi la nekkoon moom itam euh, gaañu na fan yi ñu génn loolu tamit lan nga ci lan nga ciy wax. waaw li may wax ci Mbaye Sapar Sapar nit dina bëgg loo xam ne gënul ci moom. mbooloo dafa am noo ciy demee dafa am ay jinne am saytaane jinne saytaane jinne yoo xam ne julli jullit la jinne yéefeer am na ñoo xam ne célébrité jigu leen mën nga tàmmali waaye doo am mucc doo gudd fan mhm. ndax boo demee ba wut mu ngi doon wut oto ci soxna moom yi man seetaan naa ko ci internet bi waaye oto boobu moom mooy doon li jël bakkanam moo koy faat parce que am na boo ci nekkee mhm. bët tegu ci yow làmmiñ tegu ci yow saytaane da lay wutal fiir fiir gi mooy bu ngay yoon yi ngeen gis nii ilaa Touba yi ñu teg waaw ay yooni jàmbur yu ñu ay këri jàmbur yoo xam ne dañ ko raser la te wax dégg la laaj ay njaboot dañ cee dëkkoon donc dañu terrasser yoon yooyu pour def ci tali yi te dinañ yàgg gis ni mu ne tali bi amul kenn kuy dox ba mu gàllankoor la waaye am na doomi jinne yoo xam ne ak jinne yoo xam ne seen yoon la bu heure boo leen rombee te mënoo leen gis bés boo leen laalee bala nga agsi ci ñoom ñu la nga daan ok repp boobu cat da koy indi làmmiñ di ko indi parce que boo nekkee ci internet bi mu ne te takk woo dañ la takk ba nga dëgër teg la ci wet gi parce que làmmiñ macha allah commencé woon na feeñ nit ñi bëgg nañ ko mu ngi bëggal jaam ñi waaye seytaane ak làmmiñ moo baaxul làmmiñ bu ay bët bu aay xale yi nekk ci toog bi tam nekk nañ ñoo xam ne ñeme nañu bët ku ci nekk sa ndey bu nekkee fa mu nekk bu yóbboo mu sang la ba nga set mu moytuloo la mu ne bët ak làmmiñ bu ay macha allah mel nañ nañu war a mel. Mhm. waaye seytaan seen kanam di leen rëbb. Mhm. te ku mu ci jekku dana la xaar ci tali bi mu faagagal la te ñii may wax ak yow li may wax preuve à l'appui dama ci am connaissance moo tax ma koy wax waaye ñii nga ci gis yëpp mu ne jekku ci seytaane dafa am ci ñoom. Mhm. parce que mu ne ki repp ki bëgg dee ak ki bëgg tuxu kenn du dëkk ak moom alaa xaal mu ne di nga repp ci oto mu rey la. parce que may otoom bii daanaka mooy nekk voyage bu jiitu bu mu génnee. Mm-hmm. pour dem. Mm-hmm. waaye oto boobu ba muy mu ne eggul fa mu jëm. waa mm-hmm. waaw rep rey sa bopp reyaale ñeneen. te ñi am connaissance xam li may wax xam mystique xam nañ li may wax. parce que yoon yooyu du mbay moo ci njëkk a dem. ñeneen ak ñeneen parce que am na kuy dëggal li may wax ci internet nee na moom foofu noonu bakkan na bakkanam dafa naroon des. te man mi may wax xam naa loolu. Mhm. nit ànd nga ak moom mu gis loo xam ne yow gisoo ko. te bu la ko waxee doo ko mën a làmb te doo ko mën a gis ay nit dañ ma koy wax maire looy seete parce que du ma jëfandikoo petaaw bureau ba lay nekk xam nga loolu. mais ma ne ko yow lan naa la expliquer keroog dama ko wax benn femme jooy mu ma man dama laa bëgg rek te yàlla tax ma ne ko li ma lay tontu mooy. yow boo bëggee ma expliquer li may li may seetee lu loxo dul gis sa ba loxo sax munu koo daj bés bët munu koo laal. Mhm. yàlla laa ko teg mënu ma la wax leneen la waaye man sama bopp munu ma la wax lu mu doon ak fu mu nekk ci man. Mhm. donc am na ci loo xam ne noonu laay taxawee di gis loo xam ne dafay ñëw parce que ci révélation Sonko yi ku gëmul sama kàddu fu di nga fa jaaree gëm parce que dama leen waxoon yëpp loolu moo am. te mhm. waan Sonko dañ koy dëggal dañ koy defal ay ndëgg sërëx waaye benn du ci ant te bu ñu amee lu ñu bëgg rek dañ ko dugal ci bërëb parce que luñ ma woon jaxran la. ñu toog ba guddi def seen batiment bu rëy waaye batiment ba bunt yëpp a tëju dara ubbeekuwul ok ci laa xam ne sonko dinañ ko bëgg tëj waaye duñ ko tëj te sonko du moom moo wuti mystique waaye ñu yor mystique ñoo ko ngemb nekk ci ginnaawam sax te xamu ko ok donc ku koy song ku mel ni ki Tange wala keneen nanga moytu parce que liy ñëw ci sa kaw mi ngi noonu di taxaw te doo mm-hmm. doo ci xam dara mm-hmm. tange ba ñu toogee wax waxi or man ànduma kenn Sénégal ku dul dëgg ak yàlla ma ne leen li liñ koy jiiñ ay pexala rek waaye or bi laalewu ci ok fii ku gën a rëy làmmiñ ku mën a wax rek ñu déglu la waaye man lépp lu dëgg nekk rek sama loxo nga ca injustice sama loxo nekku ci parce que def lu dul dëgg dinaa la ko wax danaa ko wax ca kaw ragal ma kenn mhm. donc li ma sama sama sunu borom may ci loolu laay utiliser à travers sama voix dinaa liggéey sama liggéey waaye dinaa redresser waat ñenn ñi à travers delloo si seen xel delloo seen xel ci yàlla ci kaw la ñuy def parce que lu amul yàlla rek baaxul. Mhm. te loo taxaw tëgg sa dën ne man la du yow yàlla moo ci ànd mu nekk. donc bu taxaw kenn taxaw ne man rek la bu dul man du kenn damay gis ñu koy def ci internet bi. Mhm. man la bu dul man du kenn di tuddee seeni bopp ay messi te xamuñ ni messi mooy ki yàlla yónni. Mhm. ndawal yàlla donc boo bëggee tuddee sa bopp Messi te yow xamoo lu mu tekki. Mhm. donc mënoo koo doon keneen ku dul yow ak koo yaakaar mun koo nekk. Ah, effectivement. waaw moo tax nit loo def rek. da ngay gëm ne yàlla moo ca taxaw mu nekk dafa am ñaan yu nangu suñ borom moo ko lool sell moo koy maye ak dëggu yaa ngi dégg ak bañ tooñ ak bañ a saaga koo xamante ni mu ne sëriñ la saaga waliw saaga doomi waliw ak tooñ ku la deful dara tànk mu ngi am ñu ngi àqru zaman dee bu lay bett du ñàkk feebar feebar bu kenn mënta faj yaa ngi koy gis chaque jour borom day ne këlëb dee parce que mu ne tooñ ku la tooñul saaga Serigne Touba saaga Alaaji Malick saaga Cheikh Ibrahim ñas mu ne saaga ku ne ci réew mi chaque jour ñu gis ko moo tax dee bu leen di bett ci moto ci accident du fi jóg. ok boo noppiwul tooñ. Mhm. koo xamul wala ku la ëpp doole te yëgoo ko dee deegu la bett. la bett. te internet bi loolu lañu fi nekkee làqatu seen ginnaaw écritel di saaga ay kilifa. Mhm. tant loolu jógu fi du ñu jug ci feebar boo xamante ni du ñu xam nan la ñuy def ba faj ko. Mhm. li may wax baatin la. Mhm. du zaayir de baatin. laa leen di wax. donc ñi xam baatin ñoom ñu ngi xam code yi. ngay ngay dañuy xam code bi ba ñoom di nga yàqoo fa ñoom te doo ko yëg. ok parce que ñoom bu ñu tooñee toog seen xol tàng yàlla yëg ko. li liñ naan xol bu tàng doy na ñaan xol bu sedd doy na ñaan yàlla delloo la li nga doon def ci lu bon. mu doon ci yow feebar bu bon say mbokk yëkkatee ko tëral te kenn du la faj dee rek. Mhm. fekk na li nga doon saaga kilifa yi. waaw loolu moo ñëw ci sa yow. fa fekk sax mébétu ca woon loolu waaye xolam bu tàng moo ñëw ci yow am na ñoo xam ne bu ñu yàlla bu ñu meree yàlla mer bu ñu kontaanee yàlla kontaan. te mhm. yàlla nag def na ko ci ay doomu aadama yu nekk fii ci ñun. Mhm. seen seen seen daraja seen daraja mooy fayu mais ñoom duñu fayu. duñu fayu mais dañuy baal fayu dañuy baal mais seen daraja. seen daraja fa yàlla toll na foofu. Mhm. Euh, léegi ah, bu ñuy wax ci wàllu ci.